bëggoon a gis lépp gis naa ko ci yéen bëggoon a dégg lépp dégg naa ko ci yéen tey jii bu ma sa bu ma bu ma sañoon ku di murit dana dana dana déglu ci kaw suuf kuy dund boo sañoon suñ jeetaay bii ku di murit dana ci bokk ma wax wax ci wax ci wax ji wax ngeen ko ba noppi waaye loolu mooy mooy mooy mooy mooy xasida yi xasida yi xasida yi mooy sañ bi xasida yi mooy sëñ bi ku bëgg xam sëriñ bi da ngay ne ci xasida yi ku bëgg sëriñ bi da ngay ne ci xasida yi fonk xasida yi de ku wut sëriñ bi da ngay ne fonk xasida yi sëñ bi mooy sëñ xasida yi mooy sëñ bi xas yi moo nekk moo nekk diggante moo borom digg ma yonent bi digg ma boppam xasida yi mooy sëriñ bi kon liggéey bi yëy na liggéey Sëñ Tuubaa rëy na lool ndax luy luy lu baax rek luy baax rek nañ ca nekk nekkal ko ca mu dib liggéeyam waaye xasida yi nag mooy liggéey bi mooy mooy moo jiitu ci liggéey bi mu jiit ki liggéey bi bu doon xare bu doon bu xare ña nga xam ne ñoo jiitu xare bi topp seen gannaaw ñuy jéem jéem fu xarab fu yéefar yi toll bu fekkoon ab xale la kon jàngi xati fonk këti xasida yi xam xati xam xati xasida yi bëgg këti xasida yi liggéey këti xasida yi kon ñooy jiitu ca kanam xasida yi mooy sëñ bi buñ ko xamee ak buñ ko xamul xasida yi dafa jar jóg jàngi xam-xam xam-xam ñëw ñëw nag ñëw nag nekk ci biir xasida yi di liggéey xasida yi dafa ja dafa aajo jàngi xam-xam ba xam-xam ñëw nag jëbbal si lépp xasida yi nekk ci sëriñ bi loolu loolu loolu laa joon dégg ngeen wax bi loolu loolu laa joon benn murit bu bu xam loolu xew dafa war na jóg jàngi xam-xam jàng ba ne ar dellu si nag nekk ci xasida yi nekk ci sëñ bi dégg ngeen wax loolu la laajoon loolu la laajoon jërë ngeen jëf damay damay yéen yéen yéen dama leen di firi damay firi rek waaye def ngeen lépp waaw nii rek la loolu loolu nag du yéen sëñ bee sëñ ci loolu moo leen ci moo leen ci moo leen ci wommat loolu du yéen waaye wax baa ngoog xel loolu loolu loolu loolu mooy dama ne am na góor gu bari xel ba may gënee di gone di ndaw ñuy waxtaan di déggoo lool muy waxtaanee baag si si mbir di ma ne ah wax ñu ko waaye diw eh, kooku daa xamul li xew rek mu ne waaye bàyyi li nga wax xam li xew a jafe <laughs> waaye yéen ñi yéen xam li xew mu <laughs> ngoog de noonu la de kon jërëjëf jërëjëf jërëjëf bu ñu ñaanal nga def bu ñu ñaanal nga def na ñëpp tàllal seen loxo baax na lu baax na waaw waaw waaw moom kay gën dañu xaw a yeewee ko rek dañu yeewee ko ba yoon am rek ñu ne ci buntu buñ jëmee rek ñu yeewee ko Thank you.

ila xidmati